bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sawatul islam barnaamijun diiniyun tuqaddimuhu al aimatu wal ulama bi sénégal wa fi lmicrophone al imam ousmane sarr wa fi tadris al imam alhaji mbay ndiaye wal imam oustaz aliyun fay al ixwatu wal axwatu almusaahidun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu imaam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. imaam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi jàkkaarloo ñun gannaaw bi ñu leen nuyoo ndokkeel leen ñaanal leen jàmm di dil saat ak yéen seen waxtaan wi nga xam ne moo di kaddu euh, l'islam di leen ñaanal jàmm nag. di ñaani jàmm ci réew mi di ko ñaaral njiitu réew mi ak ñi koy jàppale waaye di ñaaral njiitu kër gi di RTS ak ñi koy jàppale rawatina sunu techniciens yu góor yi jigéen yi ñu ànd ak ba ngeen di mën seetaan ni moo leen neexee ci li nga xam ne moo di télévision bu Sénégal tey nag ñu ànd ak eh, Abdoulaye eh, abu Mbow ñu ngi ànd ak Abou Mbow waaye ànd ak nga xam ne moo di Ibrahima Ndiaye eh, leeral waaye ànd ak Mamadou Cissé ànd ki nga xam ne mooy Moustapha Sankhé ñii ñooy ànd ak ñun ci technicien ba ngeen ko mën a seetaan mu rafetee sell imaam kon bismillah li nga indil mbokk yi jàkkaarloo ñun alhamdulilahi rabbil alamin wa salaam ala ashraf almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Baay Ousmane ñi nuyu bu baax di la ndokkeel di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér di nuyu nag eh, mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo ñuy téléspectateurs yi ñuy seetaan waaye Baye Ousmane ñu ngi nuyu imam yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal gépp di seetaan li nga xam ne nii mooy kàddug lislaam imaam ratib yi ci quatorze régions yi ak quarante six départements yi ak arrondissement yëpp nga xam ne association nationale des imams et ulama du Sénégal ñëpp a ngi foofu di diglu sa émission bu màgg bii waaye di nuyu itam nag bureau exécutif national bi nga xam ne Alhaji Omar Diène moo nekk ca bopp ba ak ñoom imaam Makhtar Ndiaye imaam Samba Sow ak imaam Top Ibrahim ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziara di leen tatagal Baye Ousmane di nuyu nam suñu spectateurs yi nga xam ne yëpp ñoo ñuy seetaan ci Sénégal ak ci bitim réew yëpp di leen nuyu di leen sargal di leen jéggulu ci absence bu rëy bi nga xam ne amoon na nga xam ne dañoo nekkoon ci yeneen liggéey rek loolu moo tax ñu gëj ñoo gis namoon nañ leen bu baax a baax a baax ñu ngi dégg itam nag seen i yóbbante yëpp yi jóge ci yow mi nga xam ne yaay nekk animateur émission bi nekk suñu kilifa nekk suñu lépp itam nag waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ak ñi nga xam ne ñoo yore diine ji rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite RTS directeur général bi ak ñu topp ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di di leen ziara di leen tatagal di nuyu nag Ousmane Sy mi nga xam ne moo yore desk religieux bi moom itam ñu ngi koy nii di ko ñaanal yàlla gudd fan ak man-man yàlla na ko yàlla defal bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Baye Ousmane di dellu siwaat rek ci thèmes yi nga xam ne moom la ñuy andi toujours di ay thème général di ko waxtaane nga xam ne ci pénc mi maanaam ci émission bi ndax diine nasiha la diine liñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon mooy nasiha la muy conseillante ci lan ci bennal yàlla ci lan ci jëm ci yàlla waaye ci lan ci jottali waxi yonente bi sallallahu alayhi wa ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni ndax mu matal li nga xam ne mooy mission bi yàlla teg ci moom waaye dañ ko yónni ngir tam mu defar jikko yi moo tax muy wax ci xadis ba ne innama bu'istu li utammima makarim al axlaq man daal muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ma yónni ngir ma matal jikko yu rafet yi ngir ma oriente nit ñi ñu jëm ci ay jikko yu rafet ndax jikko yu rafet mooy diine diine du dara lu dul rafet rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bi ma koy tagg ci alquran waxu ne ko yow day waa xuraysh nga waxu ko ne ko yow màkka nga waxu ko ne ko yow yaa gàddaaye màkka de medinatul munawwara waa ansaar di la teertu waaye lan la ko wax ci alquran wa innaka la ala xuluqin azim la ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa tedd jikko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jikko yooyu la woo nit ñi ñu am ko muy jikko yu rafet moo tax jikko yu rafet mooy lépp yawmal xiyaam li ñuy jëkk a seet ci peese balance yi bokk na ci ay jikko yu rafet moo tax nit lu man di am te jikkoom rafetul rek nga xam ne amul dara waaye mën a ñàkk nag am jikko yu rafet ne xam ne am na lépp Baye Ousmane àddina bi dañuy fi jaar ngir liggéeyi bu liggéey bi jeexee yàlla daf nuy jël kenn ku nekk dafa am mission boo xam ne moo la fi andi kenn ku nekk ci noonu dafa am raqib ak atid boo xam ne moo topp ci sa gannaaw ñaari mbagg yi kenn ku ne am na soldaar bu taxaw di la contrôler di bind li nga xam ne moom ngay jëfe di bind fi ngay jaar lépp amul dara loo xam ne daf leen échappé ñaar ñooñu nag du ñu doo xam du ñu nelaw ndax boo gisee bindum malaaka dañ leen bind ci leer du ñu lekk du naan laa yaasuna allaha ma amarahum du ñu mooy yàlla mukk ci leen yàlla digal kon raqiit ak atiit ci malaayika yi nga xam ne ñooy topp doomu aadama di bind ay jëfam ci lañu bokk moo tax nit ki danga war a am jikko ju rafet di jëf-jëf joo xam ne ëllëg raqiq ak atiit bu ñu bindee ba jébbal borom ba mu nekk jëf joo xam ne lu rafet la moo tax yonente bi ne dañ maa yónni ngir ma mottali ngir ma jotal jikko yu rafet yi kon jullit bi dafa war a xool roy ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla wax na ci al yàlla wax na ko ci alquran ne ko laqad kaana lakum fi rasul uswatun na yàlla daal noon jullit daf ñoo jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy royukaay moo tax lan la wax ci xadisam bu tedd bi nga xam ne abdullahi ibnu omar moo ko solo mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci jullit ni mu war a mel waaye hadis bi nga xam ne tey moom lañ ci tànn parce que ahadis yi wax ci jullit nan la war a mel bari na waaye bi ñu ci tànn tey mooy ban al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yaddi bay Ousmane muy wax ju am solo kon julli ndekete waru loraange waru nekk koo xam ne dafay lore moo tax mu ne al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yaddi julli daal mooy ki nga xam ne jullit ñi dañoo mucc ci lépp loo xam ne sa làmmiñ la ak lépp loo xam ne sa jëfi loxo la kon gis nga làmmiñ fi mu nekk Baye Ousmane li gën a garaaw làmmiñ amul xoolal yàlla ni mu ko bindee mu nooy nepp amul yax xoola fi mu ko dugal pax moo xam ne mu xóot la mu defal ko ay bëñ muy ay chaîne nga xam ne ñu di ko wax trente-deux dents chaîne yoo xam ne moo koy wër muy bëñ mu defal ko ay mbar muy tuñ yi ñaari mbar yoo xam ne même boo defee ni sax mbari fekk ubbeekuut wax du génn yépp mu tëj ko mu tëj ko kon lisaan mooy li nga xam ne mooy suñu problème tey mooy suñu problème moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne jullit na moytu làmmeñam ndax jullit làmmeñ mooy koy dugal ci musiba làmmeñ bu ci nit ñi muccee rek mucc nañu kon làmmeñ dañ ko war a téye foo la moo génn na génne loo xam ne wax ji yiw la wax ju baax la waaye Baye Ousmane ak li ñuy dund tey dafa mel ni dañoo teg suñu diine fale di dund lu nu neex Baye Ousmane xoola li ñuy wax réseaux sociaux xoola liñ ciy génne ci ay wax yu ñaaw feeñal ay secret Baye Ousmane xoola tey li dem ci plateau télévision yi rajo yi antenne rajo yi yi ñu fiy génne li gën a bon nga xam ne nit ki waru koo wax nit tey làmmiñ wu ñaaw ngay gis ñu tegalante nit ba dem nañu sax ba am ay nit yoo xam ne tey loolu mooy seen liggéey pour rek yàqal ma diw ci wax nga yàq ko nga gis goo xam ne yàlla da koo defaral boppam mooñal ko boppam muy jullit àqan muy jaamu ko te yàlla àqan ñu fay la yow ne la waxal ma ci moom wax ju ñaaw nga yëkkati sa làmmiñ woowu yàlla ne xam ne 32 dents moo ko euh, séq ñaari mbar muy tuñ moo ko séq nga génne ko yëkkati lu gën a bon muy sos nga teg ko ci kaw jullit boobu boobule nërmeel ko daane ko ci kaw suuf est-ce que delluwaat nga ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy lan al muslim man salima al muslimuna min lisaani wa yaddi kon jullit dafa war a am lu ko tënk li koy tënk mooy mu moytandiku lépp loo xam ne dafay mokk dafay yàq mbokkum jullitam moo tax dañu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan moo gën ci melokaanu jullit yow yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne li gën ci malis melokaanu jullit man salimal muslimuna min lisaani wa yaddi li gën ci melokaayu jullit mooy nit ñi mucc ci sa làmmiñ ci wax ju ñaaw ak ci sa loxo nga di ko def def ci def ci lu ñaaw nit a ngi def nit lu ñaaw ci ñaan ci bind ci dóor ci leneen ci sa loxo te loxo bii defuñu ko ngir loolu le loxo bi dañ koo defar ngir ngay wax lu yiw di def di def lu yiw loxo bii dañ koo defar ngay dimbali ki nga xam ne amul doole waaye defuñu loxo bi pour nga yàq doomu aadama boo xam ne sunu borom bi tabaaraka wa taala moo ko defar nga di ko yàq loxo bi defaruñu ko ngir loolu la te Baye Ousmane nañu fàtte ne ne ko cër yépp dana ñu wax yow mal xiyaam cër yépp dinañu wax làmmeñ bi lan la waxoon loxo bi lan la laaloon tànk bi lan la doxoon bët bi lan la xooloon nopp yi lan la diglu woon bakkan bi lan la xeeñtu woon biir bi lan la lekkoon pëy mi fan lañ ko dugaloon yépp danañu wax yow mal am Baay Usmaan bis boobu dafa jar a fàttaliku moo tax nañu dellu si waat ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk nañu matal na li nga xam ne mooy mission bi moo tax ba mu demee wi daa ba mu defee discours am bu mag ba nga xam ne mooy dusturul umma dafa wax ne hël ballaxtu ndax jotal ndax jotal naa ndax jotal naa yëkkati baaroomam ba ñu ne ko balaxta ya rasulullah feeg waxuñu ko woon noppi ndax mi ngi xool digganteem ak boroom mission bi nga xam ne moom la ko yàlla yónni woon kon nun itam ay missionnaire lañu yàlla daf ñuy laaj kër ak kër a yowmal sunu mission bi nan lañ ko doxale woon kon jullit na xool làmmeñam li mu ciy wax ak loxoom li mu ciy def comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane Baay Usmaan yàlla dénkaat nu ci aaya boobu la ñuy mujjee nga xam ne daf ñoo dénk ci jëw nga xam ne dafa mel ni léegi dañoo daganal jëw jàpp derob jaambur di ci wax lu la neex lu la neex ngay sos di ko teg ci derob jaambur yàlla waxut ak noonu wax wax naa ak ci alxuraan noonu noo déggul rek ñooy ne bopp rek di dunde noonu neex waaye yàlla subhaanahu wa taala wax naa ak noonu ci alxuraan mu wax nan mu ne walaa yaxtu bi baadukum baadan ay yuhibbu ahadukum an la an yakula laxma aqihi maytan fa karihtumu waaw wala yaxtabi fi hunaaka sidda moo tax ñu naan wala yaxtabi baadukum baada kon ndax bu kenn jëw sa moroom bu leen jëwante ci seen biir buñ demee ci olof bu leen jëwante ci seen biir di waxante safaan mu ne ndax kenn ci yéen bëgg naa lekk yàpp moroomam boo xam ne dafa dee ba pare maanaam lekk médd ndax kenn ci yéen bëgg na ko mu ne fa karixtu mooxu bañ leen ko waaw bu leen ko jege bu leen ko laal waaye tey jëw dafa dem ba nga xam ne lekk comme lekkante médd la nekk ci sunu diggante yooyu yëpp alquran dafa ñëw wax ci ak noonu waaye yent bi sallallahu alayhi dafa ñëw wax ci ak noonu yooyu yëpp ay ndéngale boo demee ci sortu xujuraat fa nga yooyu yëpp yàlla daf ciy wax ak noonu te nag sunu dustuur tey mooy alxuraan suñ constitution jullit constitution mooy alxuraan lu alxuraan wax loolu nga war a topp lu alxuraan tere loolu nga war a bàyyi ndax yàlla nee na maa maa farat naa fil kitaab bi min shay téere bi bàyyiwuñ ci dara lépp ci nekk dañ koo déggul nag waaye nañ ko jéem a dégg ah dama am benn ustaas mu ne yàlla waxut ne nañu mokkal alxuraan ku ko mokkal nag baax na mu ne lan la wax mu ne na ngeen ko jàng te dégg ko loolu la wax parce que bu ñu ko déggee mooy tax ñu xam fi ñuy teg sunu tànk fan la ci lu baax bu ñu ko déggee mooy tax ñu bàyyi lépp loo xam ne nii yàlla subhaanahu wa taala daf ko tere kon mbokki jullit ñi nañu suturaalante nañu yiirante nañuy bañ ak lorante ci sunu làmmiñ mbala ci sunu loxo ndax yàlla bëggut loolu le su Ousmane daal kàddu yooyu la ñu amoon doon ko andi ci jataay bi di nuyu nag imaam yëpp yi nekk ci mbaaw yi nekk ci dakaar ak yëpp ñu ngi leen nuyu ak yi nekk ca Baari Ndondol sëriñ Pape Ndiaye ak waa Baari Ndondol sëriñ Souleymane ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imaam Alaaji Mbaye Ndiaye li nga wax ëtt na moon na lal ci waaye yaa ngi woon ci liggéeyum demee ni ki nii ñu la ciy dolli sargal. di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci eh, kàddu eh, l'islam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ci kàddu l'islam rawatin nag li nga leen fàttali al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi ah, loolu tem la boo xam ne moom rek doy na waxtaan wi yëpp nag rawatin nga fàttali li doomu aadama yi li ñu war a def ci àddina ñu nekk ñoo xam ne waruñoo nekk di jëwante ko yàqante da ngay seet alxuraan li muy wax waxoon na yonent bi ne ko demal nga liggéeyi liggéeyal ngir dund laaxira ëllëg waaye bul fàttee liggéey ngir sa àddina bi ngay dund wabtaxi fi ma aataaka allahu daara al axirata wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin yi loolu imaam loolu leen lépp loo xam ne da yàqal doomu aadama diw maa ko maa ko sur loxo rek fu mu jublu naa balaa ñëw ma def fa dara loolu boo ko defee da nga dajeeg bi ëllëg te lamin wii ah imaam bi wax na ngeen moytu ko nee na dañ ko maanaam dañ ko aar nag lamin nag moom dañ ko aar ba ne doo mën a wax lu bon kon boo fexee ba fexee ba génnee ku mu wax lu bon bu ëllëgee nga dajeeg subhaanahu wa taala nee na fanweeri bëñ ak ñaar ñoo ko seq jege lamin bu bëggee wax lu dul loolu sax bëñ yi dañ koy kepp foo mu nekk bu bëggee wax lu dul noonu dañ koy kepp waaye boo waxee su bëgg-bëgg yi boo liggéey nga dajeeg yàlla imam euh, Alioune Faye bi nga déglu oustaz li mu indil nit ñi ci ëtt bi yi tamit lan li nga indil doomu aadama yi jàkkaar leen bisimilah ci loolu yaa Alioune alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi ddin maa ngi nuyu kilifa diine kilifa aada nekk ci biir réew mi di ñaan yàlla dool leen jàmm ak sutura ak xéewal réew di Sénégal yàlla na fi yàlla dooti jàmm ak sutura ak xéewal ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu baax sëriñ Habib Kanje ca Jurbel fa tabarakallahu di muqaddamu Cheikhu Tidiane Chérif radiallahu taala anhu di nit ku baax maa ngi koy nuyu di di nuyu Pape Maguette Sène bu baax fa tabarakallahu borom la neuf incha allahu taala ah macha allah imam sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ci alxuraan ne yaa ayyuha alladina amanu jtanibu kathiran min aldanni inna bada aldanni ismun wala tajassasu wala yaxtab baadukum baada a an yakula laxma axiihi mayitan kon nag fakarihtumu yàlla nee na yéen ñi ma gëm te nangul ma sama ak yàlla gi na ngeen moytandiku lu bare bare bare bare ci ñaaw njort ñu lu tax mu ne inna baada zanni ismun yàlla nee na lenn ñaaw njort yi bàkkaar la dafa tabaarakallaahu léeg-léeg nit bàyyi moromu nitam te fekk la ko ko yóbbee mooy ñaaw njort da dem ci kër yi sax gis koo xam ne gis jigéen joo xam ne doomam bu jooyee sax fa tabaarakallaahu mu ñaaw njort ci ci ñi ci des xool bañ ko xool ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam yëpp dafa dañ ko war a moytu dafa xaraam ñaaw njort baaxul sunu borom subhaanahu wa taala moo ñu ko tere nee nañu bàyyi ñaaw njort kenn kon lépp loo xam ne dal na la muy feebar muy gàllankoor muy lu manti doon jàppal ne yàlla muy joxe xéewal di joxe naqar di teg di tegee nattu mu la teg nattu waaye bul ñaaw njortu mukk ci doomu aadama yi diw mooma liggéey wala diw bu xool ba ma xool wala nangam ak nangam te loolu bari na am na ñoo xam ne lu leen dal rek ñu am kuñ ko jiiñ lu dal seen njaboot ñu am luñ ko jiiñ loolu nag la muy tekki mooy ñàkk gëm yàlla loolu la muy tekki fa tabarakallahu mooy ñaaw jikko kon nit ku baax du ñaaw njort waaye lenn ñaaw lenn ñaaw njort yi nag la yàlla wax inna baada zanni ismun kon am na ñaaw njort yoo xam ne bu ko nit ñaawee njort am na ku tax mu ñaaw njort ndax kat fa tabaarakallaahu góor ak jigéen bu ñu àndee dox dugg ci néeg nekk fa diir génnee nañu duggee woon loolu ku ñaaw njort ci ñoom yow yaa am problème ndax kat ida saa fi'lul mar'i saa zannuhu nit nag bu jëfam ñaawee rek njortam ñaaw bu fekkente ne yow saa boo duggee ak jigéen ci néeg da ngay mooy yàlla saa boo gisee ku ànd ak jigéen dugg ci néeg rek sa xel day dem ci mooy yàlla parce que yow loolu nga xam waaye bu fekkente ne léegi ànd ak jigéen dugg ci néeg ngeen waxtaane seeni farata loo xam ne nii ci seen diggante la yam buggoo leen kenn ko ko yëg su ngeen paree génn ndànk comme na ngeen duggee woon kon fa foo gisee ku dugg ci néeg ànd ak jigéen da ngay jàpp ne kii farata lay wax waaye nag boo ànd ak jigéen dugg ci néeg génn ba ci buntu néeg bii naan da takk sa tubéy boobu nit ñi ñaawee njort la yaa leen ñaaw loo njort ndax kan la la tax ngay tekk tubéy ci biir ba takkaat loolu beneen affaire la kon moo tax yàlla ne inna baada zann yéen ni leen ni ñaaw njort yi ismun bàkkaar la kon fa tabaarakallaahu ñaaw njort dafa bokk ci jikko yi nga xam ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko subhanahu wa moo ñu ko njëkk a aaye yontu yàlla muhammad dafa jàngale benn xadis bo am solo boo xam ne ñun jullit ñëpp war nañ cee bàyyi xel dana laa tabaagadu wala taxaasadu wala tadaabaru wala taqaatau wa kunu ibadallahi ixwaana wala yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaasa ñu ne fawqa salaasa ayaamin ba tay baax na yonent yàlla Muhammad nee na waay waay bu leen di bañante te léeg nga gis ñoo xam ne dañuy bañante bañante ba jéggi dayoo léeg-léeg nit jàkkaarloog moromu jullitam naan diw kay yowmal xiyaam sax bu ñu fa dajee ndax génn gi mu génn ci moom ak bàyyi gi mu ko bàyyi loolu nag du jikkooy jullit yonent bi nee na ab jullit dafay mer ab jullit dafay mer waay boo meree nag bàyyil moo tax bañ ko laajee moom Seydina Muhammad kan moo gën ci nit ñi dafa wax ne ki nga xam ne dafa yeex a mer tey gaaw a giif moo gën ci nit ñi kan moo gën a bon ci nit ñi mu ne mooy ki nga xam ne dafay gaaw a mer bu mere du bàyyi kon nag fa tabaarakallaahu nit lu mu la def ak lu mu metti metti metti soo ko meree ba nag nga war a wàcc nag ngeen jubawaat nekkaat ay parce que ay julit ngeen mais su ngeen xulóowee ne bàyyante ilaa yawmi din rek la muy tekki rek mooy safara ngeen jëm yonent bi ne wala taxaasadu bu leen iñaanante kon lu sa mbokkum jullit am waay waay yéene ko ko parce que yàlla moo ko ko jox soo ko ko nangulee rek nangu nga dogalu yàlla ci sa ci ci moom fa tabaarakallaahu te ku nangu dogal yàlla am yiw kon fa tabaarakallaahu iñaan baaxu lu sa mbokkum jullit am rek jàppale moo ko moom waaye Sénégal nag moom fa tabaarakallaahu kenn waru fi am milliard kenn waru fi am ay million saa boo liggéeyee bëri ay milliards bëri ay millions rek ñu jiñ la leen faaw ñu ne jaaykat la wala jaaykatu yàmbaa la wala franc la wala nangam ak dealer la ah kañ la fi am lii sëg wërsëg sëg yàllaa koy joxe wut moo jafe mooy mais am jafe wut ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day wuta a wut a wut bay bëgg dee amul dara yàlla boole ko benn waaye rek mu jël cinquante millions jox ko kon fa tabarakallahu yàlla ne yonent bi ne kon wala taxaasadu bu leen iñaanante wala tadaabaru bu leen wanante gannaaw ku ne war sa morom gannaaw kii jaar fii kii jaar fële fa tabarakallahu boo demee ci kër yi moo fa am léegi kër yi ñu bari jubootuñu day gis ñaari fa nga rak am problème seeni jabar yi am problème wuji peccorgo yi tabaarakallah ami problème ci kër yi wanante gannaaw kenn du xool sa morom balaa ku ci nekk balaa ngaa tudd sa morom rek lekk teew nga ne diwkaay añ wala diwkaay reer wala diwkaay ndékki su xesee jeex jeex na loolu nag du jikkoy jullit jullit dafa fa tabaarakallaahu lu mën a joteek moromu jullitam nañ ko rek da pare ñu paree ñu àndaat yonent bi ne wala taqaa taaw gis nga ba tey day fiddali wax ji rek pour bu wane ne rek ab jullit bàyyi mbokkum jullitam mu ne ne wa kunu ibadallah ixwaana nekk leen ay jaamu yàlla waaye tamit ngeen nekk ay mbokk moo tax fa tabaarakallahu jullit ab jullit mooy mbokkam mu ne nag wala yaxullu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaasa yonent bi ci benn jullit muy xuloo ak mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan kon nag sa mbokkum jullit su ngeen xuloowee lu ëpp ñetti fan jàppal ne yi ñaa ci njëkk a dee sa morom yaa ngi koy xaar safara kon fa tabaarakallahu réglé leen seen problème te ngeen ànd ñàkk olof naan euh, euh, ñàkk waxtaan rek moo am waaye réeroo amut ay jullit dañuy waxtaan. amul ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan am. kon ay nit bu ñu dëkkee dañuy waxtaan seen biir bu ñu amee problème nañ ko waxtaanee régler problème moom bu ja mu jeex ñu jàll ci leneen waaye ñaaw njort rek ñaaw njort ci di ñaaw njort ci nit rek te la ngay ñaaw njort ci moom amut yaa ngi rey sa bopp fa tabarakallahu nañ ko moytandiku imaam loolu la ñu indi woon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu li ngeen di am na solo euh, bokk jullit mën nañ cee jëriñu lu bëree bëree bëri ndax hadis bi ni ko yonent bi waxee alayhi wa salaam ni mu ko leeralee nga dal koy leeral te gis nga waa am am aaye alquran bi nga njëkk a jàng njortu njortu lu ñaaw baaxul bakkaar bu réeréer yi nga alquran teg ci nag fa laa tajassasu xam nga topp nit di di xool ay mbiram di ko luññatu yàlla ne bu leen ko def ah topp toppatoo sa mbir mi lu yittee rek waaye di reju nit ki topp di ko reju fu mu jëm waaw ak moom da gis naa fi keroog lu mu fi doon waar hudwaay man de xam naa cee jaaxle mu ñëw ci li nga doon wax rek diggante doomi ndey yeeg doo bàjjan yeeg léegi dara baaxatu ci ndax reju wante gi nga xam ne moom lu ñuy def mm-hmm. ndax seen ñàkk a jubluwaay yi ñu ñàkk ànd jëm ci àddina ci liggéey ni koyal ko yàlla waxee jërëjëf imaam kon bokk yi ànd ak ñun ci waxtaan wi nga xam ne moo di kàddu lislaam ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm euh, ki nga xam ne moo di alaaji du Baal mu nekk ca Tiwaawan imaam ma ngi leen di nuyu baax waxtu bu nekk ma ngi leen di laaj mu ngi si wër nee na seen kàddu lislaam bu baax alaaji Modou Ball mu nekk ca Tiwaawan la nekk mm-hmm. waaye alaaji Jibril njaay mu nekk ca Bambey mu ngi mu ngi ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne moo di kaddu lislaam mm-hmm. kon kaddu l'islam mu ngi leen di ñaan lu baax njabootu alaaji Ibrahima Sakho ñu nekkoon ca Arabie Saoudia waaye uh, Omar Yoni Jum ak yi nga xam ne moo di alaaji Ibra Pouy alaaji amadu Faye waaye alaaji Mamadou Thiam Wallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm njabootu Papa Sarr ñu nekkoon fii nga xam ne moo di wookaam kaddu gi ma leen di ñaanal bu baax a baax waaye ki nga xam ne mooy Karfang Kande mu nekk ca France ak Mariama Mbodj ak Fatim Ndiaye mu nekk ca Bordeaux yëpp kaddu lislaam mu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax waaye fàttiwu ñu Alaji Lamine Sakho mu nekk ca Daara Jolof ak Modou Ndiaye ca eh, Daara Jolof njabootu Alaji Cheikh Diop njabootu Alaji Dame jóob njabootu alaji ale Ndiaye njabootu imam Mor Sy mu ne kon ci ndakaaru yëpp nag alaji yan ma loo tataami ñu ngi ko ñaan lu baax ak aja ay dafay aja Caroline Sarr ñu nekk Thiaroye Asir ak alaji Abdoul Dem ak Sarloon Mendy ci l'hôpitalu euh, Thiaroye waaye ak ki nga xam ne maa ne moo di aja Oulimata Mbaye ci mairie bon Ndakaaru kaddu sam di leen tàggu ba beneen alxames ci waxtu insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu